di leen sant di leen gërëm di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan ci réew mi xéewal di ñaan ci réew mi ak dal ñëw nag am waxtaan wu gàtt rek buñ bëgg am ak buñ bëgg am ak yéen waxtaan wi nag actualité la mu xew ci réew mi am koo xam ne moo ko sooke ñu koy wax ma jàmbal Diagne mu attaqué sëriñ Bass Abdou Khadre mi nga xam ne mooy porte parole yoonu murit te jàpp naa ne du lum jox boppam luñ ko dénk la kon nag rafet na lu waay di wax ci moom muy lu rafet rawatina nag ci situation bu demee nii nga xam ne lépp ci ay njort ak i fabrication dong la tege waaye ñu ci interpellé nag monsieur Madiambal ma jambal ñoo ngi lay topp bu baax a baax a baax li nga fi waxoon Serigne Saliou fàttewuñ ko bu yàggul dara li nga wax ci corona bi ci Touba nga titre ko ci sa journal Sud Quotidien kenn fàttewu ko journal bi ba tey am na ñu ko yor ma jàmbal wàññil wàññil réew mi laaj na leneen lu dul li ngay wax nii réew mi laaj na ak dal ñi ngi ci am mbas kenn ku ci nekk yaa ngi xool nooy gérer situation bi nga xam ne ñu ngi koy dund jàpp naa ne waroon nga am beneen reflexion bu dul. fi nga fi nga fi nga fi nga fi nga fi nga fi nga génn nii wala boog li ngay wax nii am na leen lu ko ëpp solo ci yow ma jàmbal ñaata priorité moo ne ci réew mi yoo mën a bind yoo xam ne day amal njëriñ askan wi amal njëriñ sénégalais yu baree baree bari la Ablaye nag nii ko defoon lu ñaaw lu ne waxal nga ko ko te la nga daan waxal Wade ñi ngi koy def ba tey te waxoo ci dara sëriñ Bas nag moom da nga ko war a ba ngir ñaar danga ko war a ba ngir ne bu fekkee képp ku état jox terrain daf ko war a leeral yow liñ la jox leeral ko ma jambal monsieur ma jambal ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Bass ci réew mi la dëkk du malien du Gane du du Guinéen fii la dëkk ci réew mi di sénégalais yor carte d'identité sénégalais waa sëñ bi lan mooy ndeyu bàyyu état bu jëlee mbir attribué ko ko moo xam luñ ko may la état moo moom moo moom domaine public sañ koo jox ku ko neex waa sëñ bi yow yaay kan ba bu état mayee yaa ciy toppaat ne waru koo maye. cité kër góor gi Ablaye Wade may damal génne ña fa nekk ne Wade moo leen ko may kenn waru faa dëkk ñaata kilifa diine la président Wade jox ay terrain ci réew mi xanaa boo ko doon nangu ñu bare bare rek leen di génne réew mi ñaata xalif généraux la Wade teral waa sëriñ bi tey nga taxaw fii réew mi toll et puis information bi bu fekkoon am nga ko lan moo tax génne woo ko avant nga bàyyi ba situation bi nga di ko génne kon dafa mel ni ay règlement personnel nga am yow ak ak Cheikh ak yoonu Murit man du ma ne Cheikh sax Abdoul Khadr mais yoonu Murit nga ko amal. ma Madiambal man nag maa ngi interpellé président de la république na wax ci ma Madiambal Diagne di interpellé le ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye Sénégal fi mu toll laaj na ak dal Sénégal fi mu toll laaj na stabilité Sénégal fi mu toll laaj na leneen lu bokkut ak lii Madiambal Diagne di euh, wax te lépp nag fa mu jëm mooy jaxase xeli nit ñi fa mu jëm mooy féewale nit ñi te nag ay du yam ci bopp borom Madiambal wàññil Aly Ngouille sécurité réew mi yow lañ ko jox lii na nga ci wax nu mu gën a gaawee Madiambal Diagne na bàyyi Touba. boo ca bokkul maandu ci kenn obligé wu la ne war a wax ci Touba sa kàddu yu ñaaw yi ngay wax ci deru Touba ak deru murid yi génne ko. te wax fii koo fi waxal lu ñaaw même bu amul lu ñaaw lu mu la waxal dana la créer lu ne weng tegal la ko asamaan nag loo xam ne muy loo xam ne dara amul ci lépp ay sos la réew mi moomoo ko donn woo ko say maam. Cheikh Bass Abdoul Khadr lii mu nekk kenn da ko da koo joxul boppam xalif général des Mourides ko ko jox muy yor kàddu yoonu Mouride sëriñ Sidil Maxtaar mu baax ma radiyallahu anhu joxoon ko ko sëriñ Muntaxa ñëw feddli ko ko te daray manqué dañ koo gisul ci li mu def nag jàpp njàmburam loo mën a wax ci Cheikh Bass Abdoul Khadr ku dal la loo mën a wax ci Cheikh Bass Abdoul Khadr ku yaru la loo mën a wax ci Cheikh Bass Abdoul Khadr ku ami teggin la wax ji wax ji wax ji ci mbedd nga koy dégg waaye kenn du ne la jàkkaarloog maam mu def ma lu mu def ma lu bon ngir yar bi nu ko yar budul dara nga rus Serigne Touba budul dara nga rus murid yi budul dara nga rus ñi topp ànd ak moom te yaa ngi attaqué pas-pasu nit ñi yaa ngi attaqué pas-pasu nit ñi Cheikh Bass taxulaa jug ñun xam nañ fi nga jëm yoonu murid moo lay déranger waaye nag euh, maa ngi lay bàyyi leen xel obstacle yi yoonu murid jaar moo gën a garaaw fop li nga jël nii te yoonu murid bu ne jaar na ca te dara fekk ko ci ndam la ca jëlee far kon nag ñi ngi interpellé président de la une fois na wax ak Madiambal Diagne mi ngi taal daay woo xam ne bis bu takkee du yem ci moom dong dana laal ñeneen ñoo xam ne seen yoon newu ci alfitnatu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne alfitnatu naaimatun laana allahu man ay ayqadaha fitna day nelaw te yàlla rëbb na képp ku koy yee suñu borom waxaat na ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa fitna baaxul moo xam ci wax la moo xam ci jëf la te li gën a garaaw mooy say arme nga yor di ko utiliser contre yoonu it mais di ci wax lépp loo bëgg wax di ko ci jaarale sëñ bu doon ko am média yu fay yor na média Sidy Lamine Niass yor na média benn Bass Diagne yor na média ak keneen ak keneen ak keneen buñ defoon yow fu réew mi jëm te xam ngeen ne àddina bi fi mu toll tey média mooy jàllale lépp lu jàll li nga mën a wax ci réew mi dafa bari économie wax ci chômage bi wax ci insécurité bi wax ci éducation bi wax ci et cetera et ma jàmbal arrête te il est temps que nga arrêté wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.